xol yi dafay doon benn te wóor na man loolu day accompagner équipe puisque bu dee wàllu talent la suñu équipe yëpp yi mas a dem dañ koy am ba mu mat mais dina am toujours lenn lu ndaw lu des loolu nag je pense que équipe bi su sentiree derrière un peuple uni comme niñ koy waxee seize millions de joueurs yoo xamante ni dañuy vibrer à l'unisson pour la victoire de l'équipe je pense que dina ci am effet puisque joueurs yi fa ñu nekk ñoom ak seen encadrement technique dañ koy yëg dañ koy sentir man loolu laa jàpp te loolu laa gëm kon tous ensemble avec les lions tous ensemble pour la victoire finale ñu jël waaw pour que ñuy ñëw di ko dundal c'est vrai mën nañoo toog suñu biir kër seetaan waaye tant que fan mi am lu ñu gën a mën ñëw mu gën a baax parce que loolu aussi day bokk ci li nga xamante ne day yokk ambiance bi parce que bien sûr nit ñi dinañ nekk ci kër yi mais kenn ku ci ne yaa ngi sa ruq alors que quand on retrouve ici mu am ambiance bu rëy nekk une fête la ville xam ne mi ngi ci ginnaaw équipe nationale parce que bu ñu waxee équipe nationale nationale la wax dëkk bu nekk da caa war a feeñ waaw loolu nag moment bii nga xam ne Thiès ci wàllu football mi ngi jógaat ñi ngi sentir équipe di jóg ñu ngi Seneps excellence di jóg di ngi Thiès FC di jóg di ñeneen commencé di jóg il est essentiel que ñu accompagner ko aussi par lii bon ànd ko ak la fédération donc sénégalaise de football ànd ko avec le ministère des sports mais ànd ko aussi avec inspection régionale des sports inspection départementale des sports ànd ko ak la ligue bi nekk ci région de Thiès mais ànd ko ak waa ORCAV waa ODECAV ak tous les sportifs de Thiès ensemble ñu vibrer ci autour de l' équipe nationale pour que Gaynde Njaay Bara wàcc xam nga boo xoolee man yaakaar naa ne équipe bi li mu am am am ndam tey am na marge de progression dans la mesure où gis nga ni Sadio Mané football je sais également que Mbaye Niang euh, contre performance yi mu def. mën na lié aussi avec une blessure boo xam ne xam nañ ne am na ko alors euh, gis nañu ne ci yi ñu jëm ci kanam fekk confiance bi commencé taxaw euh, forcément marge de progression boobu daañu ko jël man am naa ci yaakaar bon il faut nit ñi aussi di ànd ak patience di ànd ak patience. parce que benn match bu ci nekk au minimum quatre-vingt-dix minutes la mais ensuite c'est une compétition bu am plusieurs matchs alors xam nga ñun bu ñu toogee ci euh, ci ay sunu siège di seetaan euh, dafay yomb ci ñun ñu wax yaakaar faire ça yaakaar faire ça yow nekkoo fa ci ambiance bi nekkoo fa ci tàngaay bi nekkoo fa ci rapidité bi nga xam ne moom la mbir mi di laaj parfois en terme de réaction donc aussi dafay baax yow su fekkee mas ngaa football. yow di nga xam ne nit dina nekk benn situation boo xam ne kii seetaan mënu ko xam ñun lu ñu bëgg-bëgg équipe bi gagné wóor na ma ni mun ñu koo gën a bëgg joueurs yi ndax bu équipe bi gagné c'est vrai ñun danañ ci am victoire bi ñu kontaan mais ñoom danañ ci am lu ëpp loolu ndax bu amee médailles yi ñoom lañ koy jox palmarès bi ñoom ñoo koy jël kon nañu ànd ak tolérance mais aussi. fexe ba nga xam ne dara du ñu diviser ci diggante bi ñu gën a nekk à l'unisson derrière l'équipe man am naa yaakaar cette année que dina ñëw incha allah